Ah. Le président de la République, autant il s'est basé sur les accusations contre le Conseil constitutionnel pour euh, décréter le report, en tout cas pour, euh, euh, je ne sais pas comment il l'a dit, pour, euh, pour abroger un décret et en prendre un autre. De cette même manière, il aurait dû mettre fin aux fonctions de premier, du Premier ministre. Pourquoi Parce que les accusations aussi portent sur lui. Attention. Dafa def bi bàyyi bi. c'est-à-dire dafa ne parce que y a conflit entre les institutions parce que des juges ont été accusés parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire je reporte les élections mais li mu wax noonu yëpp ça concerne le conseil constitutionnel et le premier ministre ils ont été accusés énormément donc autant ils se basent c'est-à-dire pour être logique autant ils se basent sur ces accusations-là pour reporter les élections afin que la lumière soit faite sur ces accusations-là, autant il aurait dû remercier le Premier ministre pour que le Premier ministre soit lavé de tout soupçon. Et, et c'est là, attention, attention, attention, attention. Non, euh, laissez-moi terminer. Et c'est là qu'il faut, et c'est là qu'il faut saluer la grandeur. Moi, je dis, hein, c'est la, la, la, grandeur de Amadouba. Parce que Amadouba aurait pu démissionner. Et créer une aurait créé une crise. Attention. Il doit démissionner. attention xam nga euh, politiquement et moi je connais beaucoup de ces de ces militants qui aujourd'hui ne savent plus à quel saint se vouer qui disent que non c'est un homme faible pourquoi il ne démissionne pas ceci mais gis nga intérêt Sénégal ku xam politique xam administration da ngay mën a lire la posture de Amadou Ba c'est une posture d'homme d'État parce que mënoon na démissionner xam nga dama la ne Macky Sall s'il voulait être logique avec Autant les soupçons ont porté sur le Conseil constitutionnel, autant les soupçons ont porté sur Amadou Ba. kon bu nee nañu reporter élection yi enquête kon dafa waroon wax Amadou Ba jërëjëf gàcce ngalaama parce que y a des soupçons qui portent sur toi defu ko donc ce qui porte à croire que ñi yaakaar naa ñi yaakaar ni Macky Sall dafa jiital Amadou Ba di ko fakkatal am nañu dëgg ci moom benn parce que defu ko beneen bi mooy il ne lui a pas réitéré Euh, nu mu tuddati euh, comme de, de la même manière qu'il a réitéré son engagement à ne pas être candidat il n'a pas conforté Amadou Ba dans l'idée qu'il reste encore le candidat de Benno Bokk Yaakaar il lui a réitéré sa confiance en conseil des ministres. loolu conseil des ministres la xam nga danga woo sénégalais yépp ñu toog jàkkaarloog seen télé di la déglu bokkul ak nga dem conseil des ministres wax fa la nga fa wax ñu génn di ko wax bokkul de est-ce que est-ce que. non may ma ma terminer. non non non may terminer est-ce que discours bu mu def samedi est-ce que wax na ni y a le premier ministre qui est accusé de corruption waxu ko. tudd ko ci tudd ko ci. non mais xam nga. xam nga je moi je parle pas de son xam nga dama la ne. ni mu defee. Mhm. moi je donne je tire les conséquences. ci ni mu defee. s'il avait réitéré en même temps mmh. et conforté Amadou Ba dans l'idée qu'il reste et demeure le candidat de Benno Bokk Yakaar. Non, un instant. C'est une adresse un, à la nation. Un, un, un instant. On n'évoque pas des considérations euh, Mais c'est le Premier interne. ministre qui est accusé non, quand même. Non, c'est une adresse à la nation. Non, attention, c'est une adresse mais une adresse à la nation à quel ça, ça, ça a un caractère solennel. Ouais, mais ça n'a pas un caractère institutionnel. Attention, non, ah si, euh, ah si, euh, ah, ah, ce n'est plus un problème politique interne dans la mesure où il est le Premier ministre en fonction xam nga dëgg neexul Amadou Ba est Premier ministre en fonction Amadou Ba la ñu jiiñ ni moom moo corrompre ay juges yow nga ne comme jiiñ nañu juges yi il y risque sur le processus électoral donc damay reporter élection yi pour ñu saytu loolu mais bu ñu koy saytu dañuy saytuwaale sa premier ministre. dëgg la wala déet. absolument absolument donc fa nga réitéré ni yow doo bokk war nga fa réitéré parce que nit ñi dañu soxla xam ndax yow président de la république ndax yow sa waa ji nga xam ni moom nga jiital ndax yéene nga ko li nga ko jiital yaa ngi dégg ndax gëm nga ko wane nga ni yow conseil constitutionnel tu as donné la la possibilité la possibilité. que ces accusations soient fondées. Il s'il a donné cette possibilité-là. yaa ngi dégg mais donc il donne tout de même la possibilité qu'on pense que Amadou pourrait être aussi coupable même s'il y a la présomption d'innocence moo tax ma ne il faut saluer la posture de Amadou parce que bu doon man la damay bàyyi dem sama yoon. il va mais, exactement moo tax ma ne la il faut saluer sa posture. déggoo ma de dama ne il faut saluer la posture de Amadou Ba parce que s'il démissionne demain il va y avoir une crise foofu la crise di commencer crise amagul xam nga lu tax parce qu'il est en poste bis buy démissionner Macky Sall di nekk ci problème et ça c'est claire cest à ku xamul nag administration xamoo politique xamoo xamoo nu politique di doxee xamoo nu état di doxe doo mën a comprendre li may wax man dama bokk ci ñi ko mere woon man dama bokk ci ñi jàpp ni mais comme lu waay di xeex na ci am cër te aw ma ci moom cër aw ma ci ñi mu àndal cër aw ma ci gouvernement aw ma ci kenn cër damaa toog fi ma toog ndax sama yoon newu ci yaa ngi dégg mais man su ma nekkoon place bu Macky Sall di pare discours am ma koy présenter sama démission mais bu boobaa mais dafay am crise institutionnelle bu graaw sax bu graaw li mu mën a yàq dafa bëri donc man dama jàpp ni l'intérêt supérieur de la nation dañ koy wax tout le temps mais nañ ko jëfee